rawatina njabootub Cheikh Ibrahima Sarr jasaaka borom zulun abadan a dellu si fii man Ibrahima Khalil ibnu Cheikh Sëriñ Sarr ibnu Cheikh Ibrahima Sarr zulun abadan xalifa muux muux responsable moral bu Aynu Rahmati bu ndigalal Cheikhul Xadim waaye ku am wasiila ci yoonu kër Cheikhul Xadim bokk Touba muy sa jubluwaay war ngaa xam aynu rahmat yi xam ban daraja ban maqaama la am ci yoonu murit ak ban cër la ko Serigne Touba joxal boppam. kan mooy Cheikhul Khadim nag mooy doomi Maamoor Anta Sëli borom daara ju mag ja boobu alxuraan xew na lool waaye ràññ ko war na ca lool Cheikh Ibrahima Sarr nag sooru mati jawal jub la ñuy wax waaye moom Mali Sarr ko jur ñëw ñu yàgg ci diine ñu yàgg mën a fonk alxuraan te wattu woon ko ñu amoon xam-xam foofu la toll woon ci yooyu jamono tam gis ne moom la mu bëggoon ci boroom daal jàng na xam alxuraan ba wattu ko jàng na xam waaye gis na daal des na lu bari lu mu bëggoon nu mu doxee ak nu mu ko xam wala nu mu ko leere te loolu jafe na ko lool mu jaaxal ko nag mu dégg daal yi maam moo ranta mu ne kon naa fa dem ndax ne daara ju barkeel la daara jooju dafa am illa jëru delluwaat gannaaw su boobu maam war a bi jóge ca daara jëm nekkoon ba muy yóbbaale la fa nekk loolu sori na jëru sa jërul dem ndax sëñ Bamba ma taxu jóg mu nekk fa daara ja fa Cheikh Al Khadim Ahmadou Bamba ñu ngi wax Ahmadou Sall mu yor alluwo bokk fa nekk nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa ba sa dogal na yan bi mu war a yanu nag pas-pas bi mate na ko waaye waxtu bi des na waaye faaw nag am lu gàndeeru digg bëccëg balaa ñëw naaj day tàng nag te eh, it des na ko natt ba mu am soxla am jitte lool nag booba bëgg ko ko ca dimbali ndax booba foofu la toll mu yor bataaxel nag ku bari woon kersa la wormaaloon mag ñi la ku yërëmoon naw ñi la moom Seexul Xadiim ci yooyu jamono waxir kabiruhumoo warasam saxiruhumoo waraayi fi kulli xalqin ak man xalaq mu ne ca biir néeg ba nag di bind bataaxal di yónnee ku ñu yónnee laaj ba xam rek ndax man nga man defal lii rek nga ne ko yée man de sëñ nag bind moom waa mbi ni moom wax yàlla mënu ma ko dama ci def naa daal temps ba beneen ne Seydou Sarr nga ca koñ ba rek suunu ba ndaw li dem lu man ñetti yoon dil sar mu woo ko ne ko waaw yow li nga jaabante lu mu doon mu ne ko ah man ne sëñ bi ma yónni woon mu ne ko moo xool jox mu jox ko bataakat bi mu ne ko jóg ànd moom ñu fekku ci néeg bi hmm. waaw Ibrahima Sarr dangaa ñëwoo da ko wormaaloon nag da ko xawoon a mag ci ay at ay at hmm. waaw ci aada loolu da ko magoon ci ay at nag wax dëgg mu wormaal woon ko loolu moo tax boole wu ko ca ndaw yi hmm. demaa gis rek ndaw yi jaabante ma ñëw mu wax ko la ko lii ak lii ak lii laa mën na ko loolu mën naa la ko defal mën na ko defal defal mën na ko mën jàkk na daan na ko kon baax bi mu tàggatoo mën na ko taal sax mu taal ko tafalee bi mu si bi mu bi mu déggee pindum néeg bi rek seen xool asamaan la jàkkaarloo su àllo yu mag foofu àllo raw nga yaa a nekk Kubra ci ci karama Cheikhul Khadim loolu moom bàtti la woon waaye ak nangoo ko ko mayoon waaye ak libéru ak laabiru ko ko mayoon ak xol bu sell bu rafet moo ko ko mayoon ndax dimbali morom jàmm moom ci lislaam dafa doon lu war a wax ci la nga si waat gars yi kàr gi ne ko ah yooyu saa yoon leen ci lan ñu ne ko ah waaye da nga doon di dox tey bi nga ñëw nga yóbbu ponkal naru day nii mu ne dama demoon na dikk. ñu ne ko ci naka mu ne dox. ñoo ko doon loolu dara mu ne fii soxna si toogoon rus naa fee toog jëm si ci Serigne Touba. Hmm. loolu nag def àll Serigne bi lool ñu ci néeg bi suñu borom na ko sant ko moo tax njëlbéenu jasaaka soxla xam doo jël daal yi rek teg ci kii daan ne jasaaka yaa xam ne Ibrahima aw laa xayral jasaaw moom daal di ko aw laa ko loolu daan na ci wa saak yi fii sirri wal jahri kay kan moom mos a loolu moo jëkk moo jëkk yoonu mu di taxaw kon loolu yàgg na kon Cheikh Ibrahima Sarr bu ñuy seet àndandoog Serigne tubaa ci wëllëre nga xam ne bu ak taalibe bi xewagul wëllëre xam wëllëre xew Cheikh Ibrahima Sarr ci matu magoon man ci ndax moo ko def lu ko kenn mënul woon ku ko kenn nangul woon ci yooyu jamono mu def ko ngir wëllëre boobu dul ci moom lenn lu may muy dooy maam Mor Anta Sali nag yu jàngal xuraan ne moom kon am na fu mu tegoon Serigne Touba ci xolam yàlla won ko ko ci baatinu secret isil bashir du ka misal basari yam na xàkkasar bi mën na sari bët ni muy xoole la suñu borom maye bashira muy gis ci gis lam war a gis foofu la Cheikh Ibrahima Sarr tollu woon keroog ak Serigne moo tax mu gisoon Serigne Touba nekk ci ku ko jëfal ku ma sa toog ba njële jëfal sama borom daal di koy boole ak moom ci kóllëre ñu dem ba yoon wi taxaw mu daal di taxaw ne jaayante na ma ak Cheikh Ahmadou Bamba. danaa ci poroxlu am maa itam lu bari nga di ko dégg ah Serigne Bamba nangam nangam bu doon ko nag moom bu doon ko nag diw doo ko wane kenn wane ko yàllaa bëgg ñu xam loolu. Mm-hmm. ku ci bàkkati sa mbër nga xam fooy yem. Mm-hmm. ñëpp ay mbër lañ. waaye Bamba doo nga tax ñu indoon ay mbër nag. Mm-hmm. kenn ku la nga jëlee ko ci ndey jëlee ko ci bàyyi. liggéeyalu yàlla ba mu jox léegi ndax mënoo ko bàmbaa la ko jox. Mhm. ki jox loo xam ne ba nga demee yaa gën say bokk ñooñu bokk topp la jàmbur topp la mbokk topp la réew ma bu topp la te kenn mësulaa xam mbaa bañ lay xam te woo kenn rawoo kenn mhm. kooka moo la wone waaye wane woo ko. Mhm. am ma jëf nag nga xam ne kenn ku ne jëf nga lu nga xamante ne bi lu bu ko sam naaw la gisee naw la ca rek la ca. sant la ci gërëm la ci kooku moom taalibe bu ne indi na ko ci ñoom ñëpp nag ku ne am na loo def loo xam ne royukaay la boo xam ne ku ko roy raw waaye nag am ma moom bëggatuma ko dégg du yoon bamba dalla ni allahu ala muhammadin wa xaari ni muhammadin di samadi daf ne dan sun borom ci alxuraan di ko jaamu di ko jaamu bam na ko nag jàmbaar nga lool waaye tool bi daa tool daa am boroom li ki tax ma bind ñëpp bind lépp mi ngi fi. Mm. kenn mënut a ci mënta jaaroo ci. Mm. muy Rasulullah. dem jox ko loxoom mu tapp ko ba nekk jëwriñam ci tool bi. boobu dëggal ak pas-pas moo ko ko may ak yéene ju rafet ak jàpp bana bàyyi te du geesu gannaawam. Mm. kon loolu taalib bu nekk war naa teg bëtam ci loolu di ko ca roy te kat foofu bala ma ca sori naa ci dugal tuuti Cheikh Abdoulaye Mbacke dafa waxoon ne. kenn rek kay murit hmm. sëñ Bàmba rek kay murit hmm. ku ci jàpp nañu jël ko askan ne tuddee la murit hmm. waxtu boo ko bàyyi doo doo too murit ndax tuddee too murit kon Bàmbaay murit muridullaahi moom mu ne waxtu boo jàppee ne dafa mel na noo ko toog atam jéer noo ko atam ndox lañ lay jox waaye lu gën nag ci ndox lañ bis bu ñu koy sotti ci géej bis bu tàbbi ci géej na nekk ndox ndax bis bu géej di dem de lu lu ndox dana la fa bàyyi kon nañu fexee nekk ci ndigal di ci wéy tey musul seytaane te daw gay dem nekk ci lu baax du ko yéene loolu day ku ko def ku ne boole la nga am néew mu bari nga di ci nga di ko Serigne Touba te ne Serigne Touba njaboot gi mooy Serigne Touba mu war leen te weg leen te bàyyi day xam ne la ko war ak fan la war a yem Serigne géej la ko xamul fan nga war a yem danga dem ba xaañ ba gaañ sa bopp su boobaa yow rek yaa koy wéti dañu mhm. war maa laan njaboot gi te bàyyi coow yi te nekk ci li ñu war a nekk jaamu yàlla ak liggéeyal Serigne Touba moo war noonu